li ñuy dund métti na trop trop trop trop actuellement bloqué na sunuy activité yëpp yëpp yëpp yëpp mënatuñu am connexion bu normal mënatuñu dund normal mënatuñu toog ci mbedd mi te ñun ay nitu mbedd lañ franchement ñun ay nitu mbedd lañ mais li ñuy dund nii kenn xamul lan la métti na trop trop trop trop ñu ngi ñuy dóor ay lacrymogène suba ba léegi di yàq sunuy oto comprendre nga bloqué sunu activité yëpp atelier xoolal fi atelier yëpp tëj nañ ñun fii lañ sama atelier mi ngi nii may jaay ay pièces mais tëj na affaire bi daal franchement métti na quoi te man xaw ma lan moo ko waral je ne sais pas man xaw ma quoi waaw métti na trop trop trop wax dëgg yàlla. nit munoo nekk ci jàmm ñi tax nga nekk ci jàmm ñooñu mënuñoo am jàmm franchement man loolu mënu ko mënu ko analyser quoi déjà ci écho yi ma jot a am nee nañ actuellement jël na moom ak ay njabootam yëpp ñu ngi Maroc toog léegi bàyyi dëkk bi di tàkk te doo xam ay bakkan mën na cee rot du ma sax benn bakkan ñaata manifestation ñoo fi am nga dégg ay bakkan yu ci rot yoo xam ne ay innocent lañ nit liggéey na boo wàcc ñu jàpp ko dugal ci oto bi yóbbu tëj ci kaso bi ndax lan jàpp na moom manifestant la te fekk kooku innocent la bu liggéey woon wàcce man Macky moom franchement ay mbirum mënu ma ci développé quoi lu dul jeex amul ku baax toog nga ñaari mandat mais doy na puusal may keneen mu yëg hmm? Macky Sall mais lii li ñuy dund métti na franchement métti na trop quoi man nag wax dëgg yàlla xaw ma man xamatuma nu ma war a def man xamatuma nu ma war a def quoi mais li ñuy dund moom métti na trop trop trop trop wax dëgg yàlla. lii nii moom rafetul ci biir Sénégal. am na loo xam ne moom jaaduwul nit boo nekkee ci réew yàlla may la nga jiite ko ñëpp bëgg la ñëpp jox la sa place ñëpp jox la sa cër teg la fi la war a teg boo demee ba nit ñu doyal ah li gën a rafet mooy nga bàyyi bàyyi bu rafet na àdduna bii kenn mënu fi jeexal dara nit mënul toog bu mënul toog alaa yoomi diini parce que fépp foo mënte ne ci àdduna dangay toog bu jeex bu paasee sa morom ñëw parce que lii dafa ñaaw waaye tamit askan bi dama leen di ñaan di wax leen li ñuy def dafa ñaaw nañ bàyyi yàq bi lépp lu ñu yàq ñoo ko moom te lam comme ñoom nee nañu ñoom nangu nañu askan bi ñoom ñoo voteel waa assemblée teg leen fa léegi ñoom voté nañu nangu nañu loi bi ñoom tamit nañ déglu nañ déglu charte réew mi li mu wax comme waa comme ñoom ñoo njiit ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo war a voté ñun ñoo leen fa teg pour lu ñu metti ñu ñoo xam ñu ko ñoom voté nañ ko ba nangu nañ ko ñun koy nañ leen muñ rek dara yàggul waaye nag lii moom jaaduwul rafetul nit boo waxee boo xasee ba wax waratoo dellu gannaaw wax bi lii yëpp li ko indi mooy dellu ginnaaw bi te man li ma gëm mooy nit bu xasee bu wax waratul dellu ginnaaw yàq-yàq bii nag mun na ñàkk parce que nit yi gaañu ñoo ko te ñi ñuy génnee tamit ñu bàyyi politiciens yi li ñu génnee di leen utiliser te seen doom du ñu génn seen jarbaat du génne kenn du génne ñun ñoo si gaañu ak suñu njaboot loolu tamit ñun il ñu xam ko xam ñu war a yem xool li ñu war a def ñu def ko parce que boo deful loolu rek da ngay am problème